bàyyi naa mos affaire de wóor na alxuraan euh, ëpp si ma un kon ma bàyyi mos mi ma leen mënumaa bàyyi mos mi <laughs> waaw ndax un million bu ñu ma ko jox man am naa kër kër gi ma nekk man maa ko moom maa ko tabax yaa fa mu nekk koñ bi xam nañu bu baax a baax waaye dara yàlla bu la tàccoo ci muus mi. waaw déggoo li ma la wax. muus bi muus bi muus bi naa ko bàyyi ngir suñu émission dem suñu champs yi. voilà moom bàyyi la ñu tuddee. waaw bàyyi muus bi. waaye kaaf ga xam ne maanaam moom lay ñëw. yab ma waaw incha allah rabbi incha allah bàyyi nga muus bi incha allah. bi baax. ngi si jàmm baax a baax. maa baax a baax. sa baay Ablaye Mbaye Péex géwélu yoon wi moo lay woo waaw waaw sa baay mbay péex moo lay woo. waaw nit ak mbokkam moo tax may woote. waaw ndax man la moom yaaxal na la muus moom dalaa yaaxal. muus xam naa loolu. ñëpp xam na dëgg la dëgg la. waaw wuy ma poussière nañ ko ma teg ko loxo trois heures ni ma dee. waaw. waaw Sarr sant man la Mbaye Sapar Sapar. waaw Sapar Sapar gis naa ne nga may wutee ay vidéo bii lay sama vidéo boo ana muus mi ana muus mi laay laaj man muus mi laay laaj. bonne santé muus mi ngi ci bonne santé. mi ngi ci bonne santé yow muus waxuma la loolu. man danaa seet semence bi danaa seet semence bi parce que. boo ko seetee doo gis dafa nekk garde bi. mosul nekk garde bi non non luy nekk garde bi garde bi day day day tax du ko mën a gis ay bokkam mënul koo gis. waaw dama lay dama lay wax lu wér dama lay wax lu wér. parce que man maa fi nekkal moos yi déglu li ma lay wax rek man maa fi nekkal moos yi déglu maa fi nekkal moos yi suba daal danaa ko seet si bu nekk ci bonne santé. non dama lay wax rek. bi léegi moo ko ah? seet si nekk ci bonne santé. danaa la da da nga am problème. barke war a nekk ci Massante eh, eh, eh, la mais dama mais war nga ko war ngay def léeg-léeg nga kuttu del del del kuttu ñaari xati del kuttu ñaari xati di ko sànni léeg-léeg. buñ defee appel kan mooy daanu. kan mooy daanu. borom pigeon yi daanu wala yéen ñi waaye yéen lan la leen muus bi fay. mais muus bi dafa xiif. waaw. yow tëj nga sa pigeon. waaw bu baax. waaw muus bi xool déglu ma. man kay yore laay déglu muus bi ñëw ñëw ñëw ti ti tijji affaire am. waaw. ah ci mu barkeelu ci pigeon jàmbur. muus barkeelu ci pigeon jàmbur. muus bi lañ koy àtte. non attends. attends amu ci muus bi àttewu ku rey lañ koy àtte. muus bi dafa def escroquerie ba pare def abus de confiance ba pare rey. bakkanu jàmbur pigeon wu jàmbur la lekk. lu leer lañ leen di wax muus bi dañ koy tëj muus bi dañ koy tëj de. sa pointure dàll moom la ñu tëj muus bi sa pointure dàll ñaata la. <laughs> non dama lay wax de sa pointure dàll la ñu tëj muus bi non amul yaa garaaw de sa pointure dàll 60 nga waxoon moom ngay sol moom la ñu tëj muus bi 60 ans bu fekkee muus bi dafa nekk triant.